mais mais man dama jaaxle audio bi boo ko dégloo dangay ngay jaaxle duggal ci waañ bi duggal ci duus bi ki nga gis ki tëdd noo ah, man jigéen ak ay jigéen xolu jigéen jigéen lu mu am fit fit fit am na fu muy yem nga dugg ci kër ñu ne fii rey nañ fi nit waali laay njëkkee de waxaguma sax Aziz non da dee yow yaa ngi ci suuf ñu lay xëcc ñu ngi lay yóbbu sax hôpital ñu ne déeta waaye ñu ne Aziz la même chose sa doomu ndey sa càmmiñ sa xarit sa séex sa genn wàll dañ koo rey deewul de dee boo xam ne nii crise cardiaque la wala naan garab dee wala wala mais koo xam ne dañ ko jam ay paaka gis ngeen booy marine ginaar booy piquer ginaar na ngay jamee ginaar lu ko gën a metti lu ko gën a profond parce que il faut ñu koy waxee ci terme bii pour nit ñi xam ba degré la foofu toll. mu sedd xaw ma ñu raxas xaw ma ñu defar ndax xam nga ne deret ba bëri na da dagg dagg bu ndaw ci baaraam deret bi fees fees fa nga tëdd mais yaram bi yëpp yëpp lañ jam mook waali deret bu bëri war fa tuuru. di roogalaat ñu mën a raxas di fomp miir yi di raxas di defar di coiffé un crime n'est jamais parfait parce que buñ ko ko euh, dañu fekk Aziz ñu rek journaux Aziz Dabala dañ ko fekk soit dafa xaru wala dafa doon xex ak wali jam wali wali jam bopam wala dañ leen fa fekk sen wala leen dañ leen euh, euh, comme niñ koy film la vie c'est pas un jeu la vie c'est pas un jeu dee boobu ñu bëggoon coiffé Aziz ne déedéet dem ngeen ba ray ma àdduna bi yëpp dinañ xam li ma rey ak ñi ma rey te sama biir kër ngeen may reyee fii lay doon du doon ci biti c'est vrai Adja je pense à sa maman peut-être qu'elle écoute mais xam nga dañu toll foo xam ne euh, nit ñi bu ñu toogee di laam-laamee naan da cee bokk ak da cee bokkul ak dina génn ak dina kii euh, euh, nañu nañu nañu xaar ay kilifa non il faut nag vraiment parfois mu metti je m'excuse vraiment auprès de sa maman suñu yaay mais parfois mu dem nii je m'excuse elle parle de qui maman de la maman de qui voilà le commentaire ami nee na pense à sa maman peut-être elle écoute maman de qui maman de qui ah, peut-être la maman d'Aziz. Peut-être. Mais de la wax ni euh, man aussi euh, yaïla là, te xamna ni yaay yang may déglu amna ay yu déglu Aziz peut-être mi ngi ça fait très mal mais ni langage bi la tenir je suis vraiment désolée parce que dafa yag, ci ñuy dégg xeyna na bokk na bokkul ak xëy na li mais non xam nga Sénégal aussi loolu mooy suñu problème lii euh, Samba di wax Sénégal neexut ta waxee man ni sax daf ma freiné parce que euh, j'étais tellement partie si sama sama sama sama sama sama ki mais bon dinaa ko yemale fii <laughs> les âmes sont sensibles. Euh, tant, tant que ce pays marchera, marchera sur le ndep et le maslaha, ce pays sera toujours malade. Tu as raison. Tu as raison. Tu as parfaitement raison, ami. Li may wax dama dama deuguer pour mën ko wax nous may wax ñu bëri ñing koy xalat. Xeyna nak il faut mu am ko de dina taxaw tak fitam wax ça fait très mal audio bi suma ci paré damay teud sangu di joie. mais euh, li ami wax foofu lay ñëwaat teg sama baaraam mas maslaa nëpp nëppal moo ñu yóbbee lii yëpp te nag ñaanuñu ko mais lii dafay amaat dina amaat kenn xamul peut-être ce sera chez moi peut-être ce sera chez le voisin wala yow mi may déglu tànk ñoo ngi maslaa tànk ñoo ngi nëpp nëppal ci nii rek la ñuy dëkkee ci nii rek la ñuy dëkkee man pour man tey war nañoo taxaw mais mais mais e, fi nga xam ne foofu mooy góom bi ñu taxaw wax fa ndaxte nag boo demee ci docteur te waxoo ko li la dal da ngay génn ak sa jàngoro gis nga frère Aziz bii ñu naan mu noppi moom warul noppi ay tamit mi ñu naan mu noppi warul noppi parce que da ngay gis ci dëkk tubaab yi bu lii amee dafay am cellule psychologique maanaam képp koo xam ne ni waxuma la sax ñoom ñii ko gis nii mais dëkkandoo yee koñ ba si te ba ku bëgg ñëw wax ñëw wax. dañuy and ak feebar bi góom bi gis nga son frère ah je lui souhaite que du bien mais d'ici quelques années yàlla bu mu dox ci mbedd bi di waxtu Aïda yàlla bu mu dox ci mbedd bi di waxtu tey damay xool statut Aïda li mu ciy dugal ma il faut ñu jàppale leen il faut ñu bàyyi leen ñu wax ñu génne li nekk ci ñoom yéen a ngi dégg léegi salaam salaam wax na ba craqué man xam ni du ma craqué en direct mais nit nit la ils ont ce besoin de parler nañ ne bàyyi ñu wax circonstance Aziz Dabala génnee aduna. dama bëgg yéen xaritam yi ngeen xoolee ces derniers derniers moments de survie metti woon na lol loolu rek war na taxaw tax ku nekk nga taxawal ko sa bopp ngeen jog taxaw audio bi nag euh, ambassadeur de koy teg di ko tegaat audio bi moom orienté nañu bëri tey audio bi wax na lépp fii amul lu nit di di di laam-laamee audio bi moom parler da ngeen ko dégluwaat bu baax

Euh, soxna dama duggoon Suède soxna jabar ju ma bëgg a tàggu quoi moo feebar ñu woo ma fii finalement dafa mujjee grave ma daw dem foofu moo tax ma ngeen géej maa dégg maa ngi siyaare ñëpp ma woo mama maa ngi leen siyaare bu baax a baax grand Babacar Ragnar ñoom góor yàlla maa ngi siyaare ñëpp broda maa ngi lay siyaare bu baax a baax ñoom maa ngi siyaare ñëpp waa kin commentaire maa ngi euh, pour wax leen loolu moo tax ngeen gëj maa dégg quoi loolu moo tax ngeen gëj maa maa ngi doog a egg fii à quatorze heures ma ne xaaral ma dugg ziar leen pour ngeen xam ne loolu moo ma gëj a dégg si diggante bi voilà léeg-léeg ma bëgg a dugg mais xam nga dama xatoon mënu ma dugg parce que maa ngi si nit ko feebar et tout moo tax xanaa benn information laa amoon si diggante bi fu mu ma déggoon na Naboulaye def bu diom dafa doon jéem a xaru et tout ma ne am ah bon mais comme si n'ai pas le temps et tout moo tax quoi mais man xam moon euh, moom kan lay tàggoo Sénégalais yi lay lal bu muy rey bu ñuy rey Abdoulaye Aziz dafa tàggoo nit ñi mu métti moon lool parce que moom génnul yaayu Abdoulaye Aziz doomam génnul Aziz pourquoi mu ñuy tàggoo su bukkee xaru na xaru si fu mu nekk foofu noonu si giri yi na jël giri yi dama giri yi yeey lekk ko si léegi na gaaw mais bu ñu tàggoo ñun e, di déggal maman Hélène bu baax ba maman Hélène maa ngi leen di bu baax baax avant may voyager boo gisee may dugg di wax léeg-léeg looloo bokk si lu ma métti si lu ma métti pourquoi boo déggee suñu yaay yi di wax. nga xamante ni xamuñu Abdou Abdoulaye Aziz xamuñu Waly képp ku ne fu mu nekk ñu ngi yegg yu mét bi xam nga dara taxul ñuy xeex lu dul Sénégal dara taxul ñuy xeex ñu dul ñooñu pour loolu pour jëlee ko fii nii man su ma déggee ñooñu di wax lu lu may laal kese xam nga maa leen naa fi am musuma am doom musuma am jabar si mais parce que daf ñu metti maa ngi si yoonu. tàgguguma ko loolu moo tax ma leen naa awma jabar mais boo déggee suñu yaay yi di wax ak li ñuy yegg si suñu si si si seen yaram depuis le premier semaine premier mois sawaay foo munta nekk si àdduna bi boo nekkee sénégalais loolu doo ko mun a muñ doo ko mun a muñ loolu moo tax man may dugg di wax di xeex si loolu noonu et plus jeunesse bi dama ko yàgg wax fii nii dafa neexut a muñ neexut a muñ après nag ñu bëgg a nit ñi maslaa loon noonu négocier ko jël bàyyi ko mu daanu nii xam nga teg ko nii à côté loolu mënut a nekk day yombo day yombo trop maa ngi jégalu bu baax a baax nag li ngeen ma géej a dégg tout mais xamal xam ni maa ngi fii. c'est lol mo tax gisoo eh, leen ma quoi dama dawon Suède tey tey ni la egg fi eh, France eh, booru quatorze heures yooyu noonu moo tax quoi di len ziaré bu baax ba di leen jaajëfal ci liguey bi ambassadeur yow kenn du yow do ni kenn nga bàyyi dem sa yoon mais xam nga ba légui yaangi fi fii di xex ndax lan Sénégal les ziaré di la jaajëfal bu baax ba la may goudi fan ak wir bu yaram ak képp ku fi nek comme sénégalais. di xeex si lii nii guddi bëccëg xam nga loolu laa am lu mu leen di wax di leen ziare bu baax a baax maman Hélène maa ngi lay ziare bu baax ak bàjjen xale yi salaam allez merci beaucoup jërëjëf di leen ziare. ويكدر بنضرب kan ما شاء allah oui allo ambassadeur waaw allo salaamaaleykum man la Maawa maaleykum salaam maa ngi lay ziar maa ngi lay delloo ziar bu baax Maawa maa ngi ziar ñi ma fi fekk ñëpp ci panel bi ñoo ngi lay fay di ziar di ziar sama doom yi lay delloo ziar barki démb nag damaa yéeg ñu buddi ma sànni mooy bi fi sàmmangeer nekkee xaw ma buddi nag waa dan maa buddi buddi sànni waa dan maa buddi sànni boobu lan ma def maa ngi ziyaar ñëpp nag noonu laa demee arrêté live bi dem tëddi parce que dama nekk ci kaw nu yoog sàmmangeer ba pare ñu dindi ma mais nag amul solo ndax kii la buddi da nga koy gis bu dee da ngay yéeg toujours ci live sama doom dafa maa wan ki ma buddi dafa am loo xam ne balaa dara di xew dama koy wax man dama fi dugg ndax xeexal Aziz Dabala kenn fayuma pour ma yéeg kenn newuma kaay xeex maa gis panel bi ñu fi kaas droit Aziz Dabala ma yéeg fi man jàmm moo ma yéegal ci panel bi heure bu ma yéegee defe naa ne newuma fi di poser question laajuma kenn lii damay xool li nga xam ne mooy li ma metti ci xeexu Aziz Dabala ma wax ko kon ñi fi nekk ñëpp respect laa jox ñëpp kon respect pour ñëpp man loolu laay demandé ñaari fan yi yëpp sax dugguma dama ne naa toog ba calmé wu dégg nga ambassadeur allo. allo waaw. waa dama la koy digtal parce que man loolu moo ma tax a yéeg. dafa am noo xamante ne ni man kilifa laa am ay doom. respecté ñëpp nag amul kii konk ndax ku ma yéeg ku ne moom bébé laa lay woowee donte sax yow yaa ma mag jox ñëpp cër di kaf ak ñëpp di reetaan ak ñëpp. Mhm. kon dafa am loo xam ne nit du yéeg nga bëgg a poser say question nga dindi ko sànni du ma nekk nag di dugg si détail may jéggulu ñëpp nag. di ziyaar ñëpp. di tàmbalee ko nag ci ami mi nga xam ne modérateur la. ma di ko nuyu di wàcc ci salaam di wàcc ci rang di wàcc ci ñëpp ndax man bu ma waxee li ci man ba pare. bu ma ko waxutee du ma mën a wax damay fat li ci man dama koy génne. ba pare doogu mën a wax ci ami laay tàmbalee wàcc ci salaam nuyu rang naa du ma nekk nag di détail damay nuyu ñëpp. maasale mhm. dëgg bal bi mu jàll. nit bu yéegee di wax soxlaa ma ko tax a yéeg waaye du dama damaa bëri wax rek moo tax ma yéeg dama gis lu ma metti ma di ko génne li dal salaam léegi ba mu wax ko bërki démb bi ma duggee damaa énervé ba xamatuma lu may wax parce que deewu Aziz gi dafa metti ku jur doom gis lu metti ku jur doom li Hélène wax léegi léegi ñu caxat caxatee sa doom rey ko deret ji di wal ku déglu écoute ku déglu lii da ngay li ci yow day yeewu sa xol day fudd barke seydinaa Mohamed ku déglu audio bi sa xol day fudd ndax góor bu gisee lu metti bay jooy di dajale deret di gis deret di jooy wax dëgg yàllaam dafa am loo xamante ne nii neexul ci xol waaye nag ñuy woo fecckat yépp rek nin ko waxee woon ndax man bi kii di yéeg fekkuma fi nu mu tuddati dégg naa ñëw na Maguette Seck ak ñeneen ak ñeneen boobu dafa fekk ma am gan mënuma woon a dugg ci live bi ma arrêté daal di dem tëddi ñoom ñëpp danoo war a génn ñoom ñëpp danoo war a génn fii ku génnul doo gor ku génnul jaam nga kin bëgg a setal mënta set parce que moo doon won nit ñi fan mooy yoon wi man loolu laay duggee man bëgg a setal mënta set moo doon won nit yoon wi bu dee doon koo yónni na ko wax bu dee yónni wun ko na ko wax bu dee moom moo ko créer na ko wax ndax wax dafa jot ndax nit ñi soxla nan mbiru Aziz Dabala leer nit ñi am jamm man damay tok di jabatu di waxtu ndax dafa am man man mënuma dellu gannaaw Buma tambalé dara mënuma ko fee yi ni ma ci duggé ci xeex bi di wax di xol di gëstu di déglu audio yi di gis ay video vidéo bi mujjé def ak Aziz Dabala mu nan ko ngay nampal ak dafa metti li elen wax rek falay lay jaaraat nga xamné ne Aïda nekkatul fi ne yaayam nekkatul kenen ak kenen nekkatul kon ngir yalla na ñepp takku nan yokk a takku ambassadeur yaa ngi ci mais yokkal yokkaatal yokkaatal bu baax a baax te na ne yaa ngi ci yoon bi mais gën a la yokk ndax lii ngay def xeebuñu ko kenn xeebu ko lii ngeen di def nii kenn xeebu ko lii ñuy jot am sax muy leer akus néew ñuy laaj di poser question Ababou Kara bii di ko di ko leeral ñoo ngi ko ci sant di ko gërëm ndax ñi ngi xam xamuñu woon yu bari man na dafa am lu ma mhm. bëggoon a laaj affaire avocat bi li ngeen doon def cagnotte bi yéen a koy continé ba tey wala fan la toll parce que gisatuma ñu taf lii bi. cagnotte bi allo. waaw non bi cagnotte bi non dama dama doon xaar laaj bi yéeg rek màcc ko quoi ma taf ko. waaw d'accord dama doon laaj fan la toll parce que dama am euh, sama benn euh, cousine bu ma ko waxoon. mu ne naa mhm. capturer lii bi yónnee ko numéro bi. ndax dama ne ko dañoo taf benn numéro. gaa yaa ngi fi kay xaar dama dama doon xaar. waaw léegi laaj bi ma taf ko sinon dañ koy signaler quoi. d' accord léegi bu mm-hmm. mën nga sax boo kiiwee sax même bu dee numéro am na ci suuf rek xaw ma ban numéro la man ma jël ko yónnee ko ko. buñ mm-hmm. ko bu ko ñi ci suuf yéen waa tim commentaire ci suuf ñi ko xam bu ngeen ma mënee bindal numéro bi rek ngeen baal ma wala bu dee numéro Aïda la. Aïda waaw kay kon baax na yor naa ko yor naa ko. numéro Aïda bi la yor naa ko yor naa ko waaw baax na. Mm-hmm. baax na maa ngi jégalu nag ñëpp. maa ngi jégalu ñëpp ndax man samay kàddu dafa xaw a dëgër. Mm-hmm. waaw maa ngi jégalu bu baax ay ca kon xaar ma bàyyi nga joxe audio bi. peut-être mi ngi laajaat audio bi quoi. ok waaw Tamawo ñu ngi lay ziar ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la masawu coono di la wax ne ñoo ngi jégalu au nom de tout le monde dégg jërëjëf. amul problème salaam la moo tax yow la moo tax yow lu ma bëgg a wax rek nga këf sama gémmiñ bi yow salaam yow. parce que may sa yaay moo tax maa la jur lu ma bëgg lu ma bëgg wax rek yow ko sama képp quoi taama taama ñu ngi waaw rang naa ñu ngi jégalu ah ñu ngi ñu ngi jégalu bu baax a baax barki Seexul Xadim non rang naa barki Sëriñ Tuubaa amul problème damay xam ne rek tension bee laaj moo toll foofu waaye gis nga nit léeg-léeg xam nga dafa am foo xam ne dañ cee war a toll wa kay bu ñuy nekké fi ñepp nekk fi nan bàyyi xel. Hmm. li tax hmm. ami mi ngi ci suuf mi ngi may dégg man duma yobante mom hmm. moma buddi. bëgguma ko wona sax wax mom moma buddi kéro ta ami defuma ko dara dama ko respecté heure buma duggé dama nan ko sama doom. diko ray mbélé kon nit bu la cëralé dang koy cëral. man duma dugg ci ay gin ngay duma xulo duma xuloo mais nak je respecte tout le monde respect bi dafa wara réciproque. ñu waxtané ko. gatché ngalam yalla na defal jamm kon jàmm ci ñëpp rek maa ngi ci biir nag waa kay maa ngi suuf di tàppate waa kay jàmm ci ci ñëpp rek. Tamaawo Amina pourtant aka nekk sa xarit aka nekk sa xarit. ma waaye man dama koo bëgg ndax américain la mais ñëw dama buddi la bëggee. moom tamit noonu la bëggee xam ah. xam nga la yaay. xool situation maanaam mooy tàndu tàndu boo xam ne nit mën na laal fenn sax buddi la te du ko tey. mais xoolal man dama la koy seedeel xam nga ami du nekk sama bànneex su ma faatoo mais xam peut-être je li tax la ma tombé waaj dafa tombé rek. mais kaay ma wax la sëñ Touba seera na ne xoolal gis nga ni mais ak laa bëgg. soo ko buddee noonu laa ko bëggee de mais moo tax bi ma buddee damaa tiit damaa tiit ne yàng ne waaye bon kii lan laa ko def man nag mënuma denc ay wax daal li ci man dama koy génne après live bi continuer man je suis comme ça parce que lu ma denc daf may feebar pour dire vrai man façon nit boobu laa lu ma denc damay feebar damay waxtu xajul sama bopp daal waaw maa ngi jégalu nag pour ñëpp. seytaane bëgg doole mais sa gaañ la waa kay merci baax ma dem yow léegi baax ma dem vas-y baax ma dem aja ta maa de waxaaleel na ma sama soxla yow man it keroog cëppat lañ ma def sànni suuf ambassadeur waxteer mooy laaj audio bi waa aca waa ta maa waxaaleel na ma sama wa ma ne ta maa waxaaleel na ma soxla sama soxla de man tam keroog cëppat lañ ma def wàccee suuf mais noonu la léeg-léeg day laaj nit ñi yéeg di yéeg di wàcc di yéeg di wàcc du ñàkk mais dama ne ambassadeur xamal lu ma jaaxal ah xamal xamal lu ma jaaxal man man man su man su oto gaaree ma taxaw ma taxaw ci buntu oto bi ah. yéen may déglu man su oto gaaree ma taxaw ci buntu oto bi. ma naan la ambassadeur indi ma caay bi ambassadeur indi ma caay bi. nga la xanaa bu caay bi ñëwee maa war a dawalal sama bopp de. dëgg mooy yoon. waa mais foo leen nekk damay dajji ndey buntu bi damay dajji buntu bi damay dajji buntu bi ñu ñëw dajji buntu bi nga ne nit dugal. mais loolu mooy lan. Hmm. damay dajji bunt bi damay dajji ndey bunt bi ba ñu ñëw bu ñu dajjee bunt bi nga dugg mais la moo tax ñuy ñëw ñu dajji bunt bi nga buux nit ki na ko defal nii defal nii defal nii te yow yaa doon yuuxu naan damay dajji bunt bi ñëw leen ñëw leen maanaam xanaa kay bu affaire bi ñëwee bu dugg bunt bi ubbee da ngay naaw man man mënu ma comprendre quoi man est-ce que lii moom di lam est-ce que est-ce que jàmm la quoi. ah ah oui la nee naa bi audio bi day déranger de audio bi barki yàlla day déranger. day déranger dëgg dëgg dëgg dëgg. billaay wallaay day déranger. audio bi di ko laal de. téléphone na. audio bi rek PV la ah, ah, hmm? rek PV la. mu ko téléphone Sall moom effacé na. effacé na yàlla baax na yàlla baax na. sotti rek. ba sotti rek laa. xaar leen ma ma ñu tegaat ko ñu déglu. waaw ambassadeur waaw. ma xaar xaar xaar ma xool fii ndax man fii dafay gis am ku may kala ok xaar leen tuuti mais dina rek yow yow yow yow yow nga may yow nga may partage ay vidéo eh, gitu. dama yaakaar dangaa bëgg a yëngalaat ya, kan, sama kër gi laa yaakaar ni yow saa waay ne naa bàyyi turam bi naa bàyyi du tudd turam bi sama kër gi nga may partage vidéo wala bëgg wala ngaa bëgg a kër gi. yéen a ngi teewlu de la commune. Aziz moom man maa bokk moom ndey ak bàyyi moom mooy suma tofoo man maa naam jox ko comme altine boobu nga xamante ne nii mooy mun na ni altine boobu duñ ko fàtte ndax comme ñu lañuy tollante ñun dañoo miinante ay daa ngi toog sama wet dañoo miinante euh, ba ma déggee Aziz de euh, mu ngi séddale paasu màggal yi sama ñëw sama rafet maa yëpp moo ngi nit ma suñu jàtt maa yëpp ñu ngi joxe paas màggal yi ngi joxe paas ma xaw xaw naa ko si mere sama ma ci kaw fekk mu fekk ma sama néeg yi tëdd sama kaw la naan ne nii ma ne ko yaa ngi joxe paas màggal ngeen jox ma paas màggal léegi maa war a jox paas màggal xaar ma joxuñu la ndax di moo màggal yow gaamu ngay dem kenn du la fi jox paas màggal ma ne xaar moo Aziz ma ko ma jox ko ci teg téléphone bi moo tax dina ma jotoo de loolu altine bi la lundi bi ci ngoon bi la ngoon bi après après yooyu pour tooñ ko ñaan ma màggal damay gàmm ji man gàmm taalibe Cheikh la pour tooñ rek la woon waaw léegi nag man bañ ko woowee vingt heures jëm vingt heures bu jotuma ko muy teg téléphone bi samay rakab toog ñu waxtaan ba si yàgg mu dem man tamit man tëdd yow man jaa macha allah dem liggéey waa talaata mardi dem liggéey comme comme tout le rek talaata boobu tam yàlla may ma tamit après timis laa wàcc ba ñuy wàcc fekk na timis nañ yëpp jël nañ timis ba pare muy jëm géej nag ma fekk sax dama ko fàtte mu garage kër Massar ànd ak ki may liggéeyal nii juste rek. suma rakk bi ay dem yi di lay teg sa rakk dama allo Modou Kane yow dégg nga xanaa jotoo Aziz ma ne ko dee ko de mu ne ma ndaw lay de mu ngi ci buntu appartement ba fëgg na ba sonn kenn wuyu ko sonn na ko léegi moom nee na dafay tàcc buntu bi fexe leen ngeen dem foofu man nag damaa jaxasoo nag boobu nag ma jaxasoo ndax ma woote bu njëkk bi moom jaaxle wu ma amoon benn arrière passé ndax nee naa mu ngi ci activité rek waaye deuxième bi ma woo Aïda woo wax ma loolu jaxasoo na léegi nag ñeena dafa bëgg a daj buntu bi léegi na fexe leen ngeen dem foofu ma jaxasoo na ma ne léegi man dama fee ko du xaar ay jaganjaay ay kaar xaaral ma jël yàngoo ma commandé yàngoo mu nekk jamono yu màggal ma ne su ma commandé yàngoo tamit ci trafic bi lay topp rek xaar ma jël càq-càq ci laa jël càq-càq far fay ko trois mille cinq cent jaaxle nag teg teg lu nekk sox na ma ko nu ma la la la ma ne ko demal ma mos c'est la première fois ma dem kër habitation de la. c'est la première fois boo xam nga fu mu nekk nii ma fa trois ba am fa quatre mois fu mu fu mu tëgu nii sàcc bees foofu la fa moom. Mbour la Linguère waaye dafa tuxu fii si Technopole am fa quatre mois mhm. c'est la première fois ma dem foofu nag comme comme xam nga ko foo mosu dem da ngay dee. ndax bu lay moom doonu waaw moom doon teg daal. ba si si sitte ben technopole bi wax ma dama ci fi fi stade des dafay ne stade des dafay ne jadd sa droit mo may tek tek tal tek tal ama tek tek itam bu ñu gisee nga jaxal lan lay dimbali mm-hmm. dama tek tal ba ma ba mën ma ngi nii ma wàcc jàkkaarloog moom ma ko jàkkaar moo ko rek man dama ko dama ko dama ko dama ko rek lom ko ñu dem mu ko nañ dem dama foog ne premier étage tek deuxième étage ñuy deuxième ci buntu kër mu taxaw xaar le fait que avant sama ko sax ndax ma borom kër gi de nee na bu kenn tàjji bunt bi tant que membre de la famille bi ñëwul. léegi loo loolu la wax waaye nag waaye nag man mii sax nii naa ko lii ma kon sama deuxième woote ma ne ko nabu xaama woo police indaale moom ma non bu dee police la xaama woo police am xarit police jaaray moom mu ne foofu moom laa fa fekk moom kese laa fa fekk ak euh, mbay sekk ak man mii tey ñun ñetti kese ñoo fa nekkoon. ok ñu bu dem ci kaw première deuxième le fekk que damaa jaaxle maa ngi moom tam ci taxul def nii buntu bi di xëcc buntu bi mais ku daal mu pour mu ibbeeku dafa enfoncé buntu bi daal maa ngi moom ndax nit ku jaaxle doo mën a xaar ay caabi ak yooyu. ay wala ngay xaar mënuñu. léegi de la commune enfoncé bu soog mënu mënut a nekk ndax buntu encastré la léegi la fekk mbay sekk moom demoon na étude ji mënu moom nab ñoo nekkoon sur la place léegi nag moom dem na uti ji menuisier man ba ma ñëwee moom na uti menuisier ba Mbaye Seck ñëw ànd ak menuisier bi nag ci leen arrière ñun bàyyi menuisier bi def liggéeyam hmm. daajee yaa ngi doog a ñëw sa néeg nooy ibbee buntu a ngàpp noonu rek ba man na moo ko ibbi xaw loo loo daaj yow maanaam bu ñu daaj ibbi na am na système bu ko menuisier bi di moom moo moom moo moom moo jël Sénat bi buux ko maanaam maanaam loo ko bi ibbeeku ñu buux maanaam dañu ko jàppale ci buux bi ndax loolu oh. kenn neewu fa boobu man Mbaye mm-hmm. Seck ak Nabou Leye ak Marie Kheury te Marie Kheury ba mu ibbee ba pare sax dafa dellu ginnaaw moom man maa ubbi bunt bi na ko ŋàpp nii ndax xamoo ñu fay seet man ndax dafa am peur bi nekkoon ci man man ak ak tiitaange daal kii da sama loxo bi ibbi ko nii mun a ŋàpp waaye dama ñu ko defee rek ñu gis deret baa la njëkk a gis ñu seen ko nii waaw la njëkk a gis lañ jàkkaarloo nii ci couloir bi nii nag man xaw ma déretu xaar sax mooy loolu ñu sax wax ma la leneen léegi nag peur boobu ci man bugguma dugg buggutuma dara si la paree cax man si budee man waaye nag waaw war si moo ne ma demal moom nabule si moo ne ma demal man te ma dox pas deux pas yem ci deret bi ma romb ko ma romb deret ndax deret bu fu mu nekk noonu ak néeg Aziz ibbeeku na tamit ma dem ba ci néeg Aziz fekk ba désordre bi jëree tuur fii lan bi jaxasoo fu mu sëfoon saagam yëpp saag yi jaxasoo en même temps fi nga jàkkaarloo si miir bi nekk am deret bu bëree bari bari bari bari en face miir bu bu gën a bëri bi nga romb sax ma pare ma pare man boobu man génn rek laa bëggoon doyal laa sëkk moom dama doyal sëkk sëkk sëkk sëkk duggul moom mu jig naan ba ma demal demal man maa dugg man kese muy moom muy bay sekk kenn dugg ñu ngi si ginnaaw bi ba ma gisaatee deret boobu tamit ba léegi damaa doyal sekk ndax bu romb rek doy ma sekk ba gisaat beneen bu ma pire ma jàkkaarloo moom te wóor na ma lii nekkul xaar nekkul dara dama doyal sincèrement parlé ma doyal ma doyal sekk non je n'ai vu rien que du sang léegi nag mu ne ma moom moom na bu en même temps mu ne ma xoolal foofu dara ma ne ko gisuma dara de mu ne ma xoolal salle de bain bi ma c'est ma c'est ma première fois ma dugg néeg Aziz Dabala c'est la première fois nekk ci laa gëstu rek di salle de teg waale à salle de gis ñu Aziz léegi ma gisee ba ma gisee ko te waxuma laa nit la si laa man pare yow damaa wàcc jaaxaan dafa jaaxaan si avec ses yeux waay oui billahi lazi laa ilaha benn jam jam boo xamante ne maanaam afa afa mene maanaam maanaam jël na forme daal maanaam nga jam nit ki ba ba ba ba mu bég comme manque comme manque bu manqué noonu la mel léegi mo ma gisee loolu man xam nga man c'est la première fois man xam nga xam nga ñun li mu lay wax sànq Aziz dugaluñu si vue ci vue artistique bi man de moom la foofu la àgg nii ba ma àgg gisee waali dama xaw ma waale mu xam xam ni nit ku dee na man dama wàcc directement dama génn rek wàcc directement am waa ji ma toog toog di ma conseillé man man xam nga daal man man foofu laa dofee man bokkutuma foofu laa dofee dem ci terrain ba ca terrain ba laa bëgg a jigéen boo génnee kër Aziz ba génnee wu ci ci suuf wàcc suuf dem ca ma comprendre ma daal comprendre ma xale bu moom ma doon defal di ma defal di ma defal di ma defal ba ma gis ba ma gis waaye nag ba sama xel bu ñëwaatee ma xam ci xam xamee naa sama rakk. gëstu sama rakk. muy suñu deuxième dem commune. ñu delluwaat ba ñu delluwaat nag maa ngi ñëw man la ak Mbaye Seck ak suma rakk mooy Mame Malick ñooy gis mais sa sa bi ki mu mu la ñu dañoo xaw a nduroo ñu yuuxu ci ci ci ba ñuy suuli ab Aziz kooku mooy Mame Malick ñun dañoo xaw a nduroo kooku ba ñuy dem ci deuxième dem bi moom ci la agsi man maa man la moom Abdoulaye ak Ndeye Seck ñu yor suñu portable le fait foofu def naa lambe bi dafa mu ne mu ne ma taalal lampe bi à droite ko di xaajal sama portable taal ko ñëw ñëw ak moom waaw dafa dégradé ñu ne ko waaw mu ne si waali mu ne waali la nii la dara amee di demee moom bañ tiimee xale bi mën a ku nekk foofu ku ngeen gis ñu ko kii di xam ni ko dafa dégradé ñu ne ko waa mu ne si waali la léegi nag la fekk ñu gis nañ benn boobu moor boobu nag ñu am ci dura la dara ci ñu dara ma nekk fa fii di jaaxle ñu nekk parce que man ma parler man dama ni sama en tant que dama ni sama rakk moo def lii ah. loolu lañ wax waa parce que dañoo tëj waañ bi tëj saal bi waaw waaw Allô C'est bon, hein Ok. am na ab studio la waañ saal néeg ah bu seeg am pat ak si béeku ab ñu doon ku doon xeex daal ku doon xeex ku doon xeex tey gis dut bi kenn dee tëj nañ waañ bi tëj nañ dut bi lépp ne ku ci kër gi ñaar doon ñaar ñu doon xeex kenn kee kër gi dem na yoon loolu moo ñëw suñu ba moo bu ñu Aziz nag ñun sax Aziz nag xoolal ñu Aziz seetu Aziz ñu dañoo jàpp ne sax def lii léegi nag ñu ne woo police pour ñu ñëw xool lii lépp ñu xaar police xaar ko xaar ko ba police Pikine ñëw ba police Pikine ñëw mu waat mémorisé bi parce que ñun daje nañ appartement bi buntu appartement bi léegi police moom léegi gis na léegi lii am fee léegi nag day am pour daji bu baañ bi ak saal bi saal bi léegi ba président jee waañ bi ak saal bi nag ñoom découvrir nañu Aziz waaye ñu boobu xam nga police bu ñëwee day tax ñëpp ñëpp wàcc nañ suuf ñu wàcc nag léegi ba mu découvrir nag ñu moom kenn moo xaw a déggoon moom wax leen moom moo woo police caare agence waaye du du équipe baa ñu kenn ci xaritam yi la daal moo ñëw kooku moo xamal ni yow de mbir mi denkul benn dee ñaari dee la am na keneen ku fekk ci saal bi léegi réaction nag bi lay foofu moom dafa ne wu sama ko la ko léegi nag ministre moo doon te amoon na ñenn ñi nga ñu ngi ñëw ci bépp boobu noonu effet bi day yaatu ko mu dal dara man police boobu même même police bi na ma may na ci waale yooyu ndax sonn ci yooyu yooyu mën na di ko noonu defal ma ma defal. waar ma xamal ma ni ah mbir mi amoon na benn bu ne guddee gis nañ beneen guddee waaye ci saal bi te ça rappelle Aziz ndax keroog koor yëpp ñëw nañ police scientifique ñëw na gendarmerie ñëw ñëpp service d'hygiène la bu bu dekkoon ñëwul woon sax nga xam xam ni loolu am dafa ñëw parce que koor bi dafa xaw a commencé yàqu maanaam koor bi dafa yàgg kon foofu ñu di te foofu pour foofu nekkaat en norme ak ñi nga xamante ne ñëw yi pour pour nga nga la récupérer faaw nga am seen produit yooyu def noonu pour mën a récupérer ñëw bi. waaw loolu dëgg loolu moom police bi moom moo ko confirmé maanaam ni ñi ñi waa mel sax Aziz moo ko gën a garaaw waaw police bi moo ñu xamal loolu parce que ñu ñu ñu ñu wax ni lii dafa naa nekkul tey nekkul loolu. di tey la mu ñu waali sax moom moo gën a garaaw ka waali parce que Aziz fu mu nekk amul éducation tàng na benn néeg tamit. moo waral boobu nga xamante ni mu doon ñii am ci appartement bi mu nekkul doy waar. non non non non man le fait que ñun daf bañ bañ jógee suñu suñ suñ suñu déewu bi nag nga xamante ni sama mag bi ngeen dégg sax ji te ñu woo ko woon ko dégg ba ma participé ko wax kenn man tam ma dem ci terrain bi waaye sama bi sax dafa topp di ma xëtt ma yow wax ma man du ma jigéen wax ma moom moo expliqué ko affaire bi moom tam mu ànd ak ànd ak ngëm yàlla waaye moom moo suñu mag ñu ñëpp. loolu waral sax dig ba ñu wax numéro mu fi kilifa ñu joxe ko numéro bu dem waaye bu ci présence sama naa ko fa njëkk présence waaye comme moom suñu kilifa ñëw na léegi moom moom moom la ñu bàyyi. mais kër gi parce que am amoon na service multimédia bu nekkoon ci wet bi à droite am na amoon na caméra de surveillance kër gi tamit dund kër gi si si kaw ko tiim amoon na caméra de surveillance tamit foofu aussi tamit. benn wàllam ci benn kër loolu beneen kër bi la bokkut ak même kër bi waaye beneen kër gi am na loolu moom sur sur et dina la dina la dina gis parce que ni mu ni mu ni mu bindoo la waaw ni mu bindoo la waaw mu nekk loo xamante ne nag fee bu doy waar boo xamante ne déedéet ba ba ñu jógee ci appartement bi daal ba ñibbi suwaat muy loolu maa diir ñu ne di ñun ñun ba ñu xëyee rek ñoo ngi ñu dafa fekk xam naa ko bi daal dafa foor suñu kër dafa fees dell dafa fees muy ci biir kër gi sama mag yi dem fële hôpital pour le fait que dañ koy autopsie ñoom ñoo ngi dem toppatoo yéen autopsie ñoom ñoo ngi ci kër gi foofu noonu ak suñuy jaaxle ak suñu nga xamante ne tey ci ñoom ñëpp ñu jooyle ci loolu la nekkoon daal waaye naa bu lay moom wax dëgg am na ñu mu jokkoon nag suñu kër waaye du man gis ñu ko parce que ñoom nekkatuñu si moom tempo rek ñu ngi jooy suñu rab ba mu ngi noonu la mu nekk feeyu feeyu feeyu feeyu métti loo xamante duñ ko mos a fàtte duñ ko mos a fàtte ndax ki nga xamantene mom lañu jël ci ana buñ ko jëlé lu jël sa mo ñu ko autopsie bi li mu wax dégg nañu naan ay 30 ñu naan quarante ans waaye ñun de li suma mag bi wa 12 lañ wax 12 jam jam ak li nga xamantene manam biir biir bi manam benn xotte jógee ci biir bi jëm ci tan bi loolu nak xamna du ñak lu da xam nga bu firanga mu ngi ci waytam en mu ngi ci tan wa loolu mom bokku na ci parce que parce que bu dee bu dul agression ba fiiraange bu méttee ni daal c'est pas la peine que nga nga jam ko un coup sax waxuma laal ba mu dem douze ngay xotti ah ñu wax nga teg ci beneen xale boo xamante ni innocent la soxla woo ko bëggloo ko du sa cible kon comprendre kenn comprendre daal waaye xam naa ne en moom mu ngi ci biir moom en ak nit ki mu ngi ci biir ba tax na ñu ngi jéggalu bu baax a baax a baax daal ñun. gaay dégg ñoo ko déggandoo ah ñoo ko déggandoo quoi audio bi man audio bi daal man xaaral ma hmm. asalaamaaleykum wa rahmatulah. am na solo yow mi naa yow mi ma doon laaj Mbaye Seck ah Mbaye Seck Mbaye Seck defu defu rasta dégg nga yow Seck ne nañ defu rasta nañ defu rasta quoi mhm. allo. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa rahmatulah maa ngi jégal woota maa ngi jégal dama wax wax ju parce que toog si panel bi tamit lu ma a gënal mooy ne ma wàcc di tapote parce que amul solo ma la ziyaar di def ziyaar panel bi yëpp. man tey bu ma la gisut euh, duggal naa si beneen panel fekk na si panel boobu moo tax ma ado ma ma abonné si panel boobu noonu déglu looy wax parce que yow sa panel bi rek laa dee déglu mu si bari waaye beneen panel ma after boo leen fa génnee dugaat naa feneen di dégg koo xam ne xaw ma euh, journaliste la xaw ma daal man Gambien la moo tax ma mun a baxee nii xaw ma journaliste la xaw ma waaye dégg dégg lu ma doon dégg muy wax si yëfi yu nabu lee ak ak euh, yëfi assis man de maa ngi wax euh, Sénégal fu mu nekk nii su fekkee ne ñoom dañ génnee nabu Leye ne dañ ko si setal ba mu set wécc ak ak lu ñu wane yëpp wane ne Nabou Leye loxoom taxana se Nabou Leye moo oo ko bunta bi Nabou Leye moo dem moo ñëw moo wan ki nit ki ne ko dugal fii dugal fële kon kooku waali la ak su fekkee ne dañ si génnee Nabou Leye ne Nabou Leye loxoom setut waa Sénégal nañ takk seen bagage ut feneen fu ñoo dem ñu xam ne kon joon amatu Sénégal parce que Europe laa dëkk xam naa Europe su fi su dara xappu ne tey ali yëpp lu ñu wane ne yëpp kii mu fa loxo mu fa gis nañ ne moo ooteeg moo dem dajji bunta beeg yëpp ñu ne loxoom dafa set weej weej wéj wéj wéj jaaxal na ma tiital na ma trop su ma xol bi jeex na tey tak tak tak jooy rek laa bëggoon def mënumaa comprendre ne métti na métti na fu métti em yow lii yëpp xappul ñu wane Nabou Leye bokk yoon ñu am na ñoo xam ne dañ bëgg a setal Nabou Leye soo moytuwul Nabou Leye dinañ ko génnee mu set fa wécc jommi naa ba pare leneen beneen lu ma waxatee lu ma mooy lu ma wax léegi léegi man panel bi duma fa dee bëgg di taxaw saa yi nekk dama dee bëgg di dugga rek wax suma soxla rek génnaat taxaw si biti di tappate parce que am na benn sàtte boo leen fi tegoon yéen a ngay wax ne baax na tamit nit ñi tappe parce que ñu bari ñoo dee bëgg di wax waaye su fekkee panel bi dafa fees ñu bari doo leen mun a dugal ñëpp so man fu motax ma de bëgg di wacce di tapoté ma ngi wax ñaan ñoo xamne duggal na ci pané bi légui légui di wax né dañ leen buddi woon man ci suma xelaat wax xelaat bu gàtt de lay xelaat de mun naa am daga ngaa topp dugal sa boppa te wolo te parce que dal na ma té bi dama né amé baaleen ma wacce ba dama dama topp de dugal pa tapote laa doon def ñu nga doon def tam nga topp de wacce ñu nga topp de topp ñu wacce la ba paré ñaan ñu duggon di wax ne amé daf leen wacce ñoom jege nañ amee nañ kool amee si suuf bu rafetal wax ji moo gën ñuy yegg si kaw di ko wax fii man loolu man daal si suma xel bu gàttal laa wax de xam naa ku lu feeñ si sa lu nekk sa xol bi rek ko bëgg di génnee waaye yenn daf dee baax tamit nga rafetal nga génnee ko si suuf parce que loo kulóos kulóos yow waa ngi waxantee moom bu wàcce si suuf nga wax ko foog naa moo a rafet man loolu suma xel bu gàttal suma xel bu gàttal laay xelaat de parce que loolu nga def ko moo gën nga egg si kaw ne kii daf ma buddi xam naa ko ma buddi ñun ñëpp mag na kenn nekku fi la ba pare ñu si jëna man mi ban mu nawane ami bun ak ñom am suma taw moko mak ba mbaa mu ema suma taw so léegi yow soko ko comme sa dom né wacc ci suuf wax ko ko mo jëna rafet du yàqa dara parce que yow mu ni ci ko diko di wax dafa mel ni yow yaay ndey panel bi yow yaay yow yaag nga ci panel bi yow yaay borom ci panel bi di jàppale ambassade ñun muy wax ni rek dañu dugg di génn di wax rek di waccat lolu ñu gënal lolu rek la bëggoon pour wax oh, baxna na ngay waccat merci beaucoup Euh, assalamu alaikum euh, defe naa kii bi mosoon ko dégg fii euh, audio bi audio bi daal bon saa yu déglu rek da ngay am lu bees loo xam ni di nga si jàng bien que sax Papa Naar moom ni muy expliquer yenn saa yi day xaw metti ko mais li nga xam ni même su fekkee ni sax loi bi dafa wax ni ni il faut euh, présence ou membres euh, membre de la famille Madame, yow mi dem ba menuisier Ité am indi indi am ité police police parce que kër go xamni yow ngi ñaari di di di nga toog lundi mardi loolu yëpp yaa ngi fëgg di woote te defe naa am na sax benn témoignage buy wax ni mu ngi doon jaabante ci ci immeuble bi pendant deux jours léegi boo demee ba jël am ittee bu yow nga woo benn frère am mu ñëw sam euh, mbay sekk la xaw ma ñëw ngeen woo menuisier ok léegi war nga mën a am lu gën a yomb ci cas yu mel nii mooy nga woo police ni kër gi ki fi nekk xam naa ko woo jël yërul téléphone bo fëggee du ubbi loolu xam nga loolu lu rëy donc police mooy ci gën a jekk waxuma sapeur sapeur moom police moo koy woo mais police moo gën a jekk moom ci nga woo ko yow woote woo ñooñu ngeen fexe ba dajji bunt bi yo nga woo benn police bu nekk caaro yi un policier ki vient tout seul dugg ci kër gi moom ubbi laal bunt yi ubbi léegi nag papanaar bu duggee menuisier dugg keneen dugg léegi prévu yooyu yëpp day yàqu parce que kenn dootul xamati ki kenn moo fa dëgg à quelle heure et cetera et cetera defe naa ne xëy na Nabou loolu la bëggoon xëy na dafa bëggoon papanaar dugg laal ay mbir dugg ci néeg yi xool mais moom yàlla ak sutural sax dafa génnaat daw mais imagine leen rek mu am trois ou quatre personnes yu fa dugg avant plus di ñëw léegi dugg ci biir salle bi altéré preuve yi nekk foofu yëpp parce que kenn dootul xam lii kañ la woon mooy fexe ba membre de la famille ñëw yow mi fexe ba ñu dajji bunt bi yow nga dem ci ginaaw nga ni ko demal aci puusal ak puusal demal encore kan nga gis ki nekkul foofu waaw loolu deret mën na nekk foofu te yow du kenn du fa nekk mais yow yaa ngi koy puus moom mu dem foofu lutax nuyu ko li gën li teju nga ko demal ubil fi ni parce que kenn du ubi kër di dem ci salle de bain bi da ngay ubi dem ci salle bi wala nekk donc yoy yep ay reflex yu mu am lo yo xamé ni xéna mom objectifam rek mo don nit ñi dugg ci kër gi légui nak preuve yoy ah, man man fi don dugga dugg maa fi don doyal mom sax bu yegu ndey dugg parce que bu fekkee duñu fekk ay ADN am wala ci ci ci Aziz wala yoy mom lépp gënon arranger moy mu dugg moment bobu sax. ñu xam ne xëy na moom moment boobu la laal kër koor bi wala yooyu mais toujours est-il que daal euh, xaw ma nag ndax dafa am ñu am intention dindi ko maanaam setal ko ne ma xamul fan na ni jaar xaw ma xaw ma fan na ni jaar ba moom nekk mësul dugg ci appartement bi ba mardi bi ñu dajee bunt bi xaw ma fan na ni fan na ni jaar. ba loolu mën a nekk wala nan la moom mën a nekke ñu jël ay ADN am ci corps ak yeneen rek yeneen yoo xam ne sax yenn saa yow da ngay wax ba dootoo si sax bàyyi xel parce que da ngay sonn sax ci analyse bi parce bi day toj parce que yenn yi euh, soxlaatul démontrer ma waxuma nag ni moom moo jël def acte rey waxuma loolu mais maanaam fekke muy avant wala après nga nekk fa organiser kër gi nettoyer yeeg nangam nangam loolu moom je pense que kenn mënu ko dindi ci loolu ba pare xam ba pare ni tekk man loolu laa jàpp donc euh, moom moom xam nga nag euh, suma sista bi di mu wax ni xam nga ban journaliste moo doon wax loolu xam nga ndax moom dafay expliquer di xew wala dafa nekk di wax euh, di manam di taxawal nabu wala da fay nek di expliquer rek li mo am ben groupe li ñuy def ñom groupe bobu lu muy def mais bëggoon naa xam émission bobu lan la ban la ak ban journaliste la mooy wax voilà man fu ne nii la ci mëna wax mais dal franchement ñun li ñuy li ñuy toog fii wax ci ka bi dugg nañ fu nek genn wax nañ ay hypothèse yoo xam ne duñ ci mujjee dellu ginnaaw dugg ci yeneen c'est-à-dire que defe naa wër nañ lépp du ci bare en tout cas te musuñ gis fu moom fu mu ci génne honnêtement nag laay wax waaw honnêtement sans parti pris ni mais da gis ni moom daf ci am na fum mu ci taxe daal franchement fu mu bu baax sax bu baax loolu nag maa ngi wax pour. ci direction ñi nga xam ne ñu ngi ko bëgg setal dama leen di bëgg wax rek que ni moom am na fu ñu ko taxi ak lu ñu mën a góorgóorlu pour mën ko setal moom am na fu mu taxi léegi nag su may wax sama conviction personnelle man dama naan mi ci biir bu baax a baax a baax man loolu laay wax xam rek xam rek te bañ a wax loolu dugal na la fekke wala yëg te bañ a wax loolu dugal na la voilà sinon kenn du ko jël jël ki ko gën a jege ñu koy tuumaal. woo ko woo ben woo ko benn woo ko ñaar ñett confondre ko ak ay preuve donc lolo du sama wax waxu procureur la procureur moko tey te mom téyewu ko parce que comme ni ñuy wax waa pour protéger kaak wala wala da de looloo ma neex dedet dafa am lu tax parce que mom droit lay wax il dit le droit nekku fi pour nan da fay protéger diw contre ma sàmba wala ma demba procureur bi loolu du kuñ ko indi ni ko kii duñ koy tuumaal lii te euh, ci enquête préliminaire bi lii ak lii nañ fekk ci place bi moom loxoom ngi ci yu bare nangam nangam ak ak témoignage yi donc moom ci loolu lay taxaw wala laaj la nga koy wax yu incohérent mu ni kii wóorul kii duma ko bàyyi ci biti donc loolu moo tax mu téye ko du leneen du ay protection ou quoi que ce soit c'est sur la base de l'enquête préliminaire avec mon interrogatoire bu mu am euh, si la a une conviction que Niki il est elle est mêlée ba chef d'accusation yu association de malfaiteurs assassinat avec barbarie etc. cetera et cetera je ne pense pas que vitesse de l'enquête fait enquête Bobu, ba mettre mandat de dépôt duma japp ni dañ ko def ak légèreté donc xam na liñ def té ñoom ñëpp nañ duggal ci biir ba paré nak daal di teg ku ci nekk na ñu tegal la sa ay euh liñ lay reprocher sa responsabilité ci mbir mi loolu ñoom ñoo ko xam ñun xamuñ ko ñun ñu ñuy japp rek moy ñoom ñëpp di ñu mêler ci affaire bi d'une manière ou d'une autre à quel degré non enquêteur yi moo ko xam juge bi juge d'instruction bi donc voilà donc nak ku ñëw fii toog di ñu expliquer nii dafa set te mënoo ko teg nga firndi ko man yooyu laay bañ yow boo ne dafa set wecc ñëwal nga teg lu leer nga ni kii dafa set parce que lii ak lii ak li moom nekkul woon sax dakaar faf voilà loolu ma mën ma mën nangu loolu mais dafa set duñ koy setal rek taq ko ci daal di toog loolu ñëpp mën nañ ko loolu ñëpp mën nañ ko ñi ñiy toog ni dafa rey tamit bu la neexee ñu wax loolu dans ce donc Sénégal fii ñu war parce que surtout ci affaire crime yi nii duñ ci wara a maandu duñu war a toog xamul yow ñu ndoog tok fi nga ñew tok fi ñuy analyser ensemble mais tok ci télé di expliquer yoo xamé ne yow li xamulo ci dara wala yow yaa ngi joué benn mission lolu c'est dangereux ba pare sax c'est même je ne sais pas comment même euh, qualifier cela ci ko xamné yow taskatu xabar nga wala leneen yow war amo droit ngay tok fi di di génné sa ay xalat te lo xamni ne basé woo ko ci dara yow ay fait nga wara relater après nga doog a wax ni yow nga def sa analyse mais des faits. analyse moi je peux me permettre wa wa lay fay Yo, donc mën nga am ce sa opinion mais yow da nga wara tok ci télé bi nga relater ay faits mënoo ñëw tok si sa ay xalaat ni rek yow nga tok ni ñëw affirmer dara loolu c'est dangereux moi je peux me permettre de faire ça parce que man awma responsabilité di informer kenn dañuy toog di waxtan rek mais un journaliste wala quelqu'un wala chroniqueur amuloo droit nga tok di di am sa ay khalat génn fi ay comme ni ngi nank laa dañu fa andi way ya des lobby bu truc man lobby mo moo fi am dañu ko wax wala ñun ñoy lobby xamna mais yoy boo wax da ngay wax ni lobby yi ñoo fi nekk am na lobby bo xamni da fay tok c'est des amis c'est des gens d'un certain milieu ñoom ñoo bëgg ndaw si génn da nga wax nga wax léegi boo nee nag am na euh, euh, contre ñooñu mais da ngay wax ñan la voilà mon mari ngi arrêté fou waaye di leen nuyu ñun ñëpp Aba maa lay ziar hmm. ok. waaw maa lay fay bu baax maa lay fay gàncax maa leen ziar sànq dama dama génnoon dama xawoon a quoi donc je je ne sais pas si interpellé ou non, c'était juste pour euh, Je sais de quoi Mais on a écouté la cassette, de, enfin l'audio de interview au Kébi, Papanar, le jour de, euh, de la découverte de, des corps. Quoi. Oui, le mardi, là, le fameux mardi. ce que j'ai souligné surtout moi pourquoi Naboulis a pris la peine moom mu jël kii di insister di woo que ñoom Aziz dem ñu wuti menuisier ak mbay sekk te elle a pas eu la présence d'esprit moom mu woo police mais mi ngi dem di acharné wu ci kii xanaa fii góor amu fi xanaa ah, du ñëw nangam et cetera et cetera ñu woo Mbaye Seck ñu dem woowu menuisier mais loolu yëpp mu def woo woon police moo ko gën moo ko jiitu koo xam ne yow da nga toog pendant le lundi ñu ngi lay gis ne yaa ngi dem ak ñëw ci immeuble bi yaa ngi fëgg yaa ngi woote. xam nga li gën a kii mooy yow nga woo police mais doo dajji kër gi doo gaa woo police. Mm-hmm. voilà. li a yenu maanaam. waaleykum salaam. nuyu naa leen yéen ñëpp. ah tata Betty ça ngi leen di fay ñi wàcc yéegaat leen. yéen a ngi ci jàmm. tonton Wota nuyu naa la tonton man question bi may Mm-hmm. mooy wóota fi nga daanelee léegi. waaw après roche boobu yàkkamti boobu gaaw leen ñëw leen yooyu yëpp. pourquoi mm-hmm. quand la porte était ouverte lan moo tax duggul. waaw parce que loolu laa bëgg xam lan moo tax duggul. yow yàkkamte nga ñu dajji nañu gaaw ñëw xanaa góor nekku fa xanaa lii mais lan moo tax ba ñu tijjee nga taxaw di wax nit ki demal fii duggal fii defal lii demal nii pourquoi loolu. man man dama am benn hypothèse peut-être que.

xam nga dina am xam nga fu muy dox moom nee na am na deret fu muy dox foofu dina fa bàyyi dàllam yi dina fa bàyyi empreinte dàllam yi. voilà. donc yooyu. lampa ya mu koy tàlloo bunt ya la fa doon defloo. waaw policier bi dugg na bu fekkoon ni dafa am ñeneen ñu fi dugg kooku je parle sous le contrôle de Aba dafa mën na altérer ay preuves cest à mën nañ considere que ni preuve yooyu dafa altérer parce que daf ci am ñoo xam ne nekk nekkuñ fa woon ñii nekkuñ kañ la fa ñii nekk ken la fa ñii nekkul woon loolu mën na tax preuve yooyu irrécevable parce que dootuñu xam mhm. kan moo fa nekk ak këyil moment xam nga mais moom duggul ay ay ci ci ci ko mhm, mhm, la defee rek moom bu duggoon sax xëy na mën nañ toog daan ah waa duggoon na ci kër gi lii ak lii xëy na laal na ko moment boobu mais moom du duggul donc laa dafay wane ni moom laal na ko avant laal na ko avant te mu ngi xool keneen tamit koo xam ne dafa yaakaar ne bu laalee day effacer moom ay empreinte am ya fa nekkoon moo tax mu fa doon jéem a dugal frère bi wala lii naan kaan ubbil fii laalal fee frère boobu noonu gis nga tey bu doon bu doon expliqué wul dugg bi li mu expliquer nii si audio bi nii tey ñu fekkoon ay empreinte am foofu kon day dugg. oui oui parce que duñu xam à quel moment la empreinte yi nekk foofu moom suma suma su ma doon moom damay dugg su ma duggee dina wane ni man ak diw ñoo kii donc man moment boobu laa ko laal mais moom duggul donc à quel moment kon la laal koor bi à quel moment donc avant ñuy dajji bunt bi te moom mi ngi wane ni moom yi xamul li xew donc foofu dafay am benn genre de contradiction yow xamuloo li xew mais avant ñu tëj tijji bunt bi yow sa trace mi ngi nekk ci kooru nit ki te yow bi ñu dajee bunt bi yow dugguloo ci kër gi yow kan à quel moment nga dugg ci kër gi donc loolu moom def ko dugal su ma doon moom damay dugg dinaa fexe sax ba ni ah ma kii ñoo ànd ba laal ko bi kon moment boobu laa ko laal voilà mu jeex mais loolu defu ko parce que moom intention peut-être moo doon na kii fex fexe ba dugg rek ñeneen ñi moom dugguñu te

wala ñu ne attends nañu woo police ñëw ana parents frères yi tout ça ñu ñëw ñu daj bunt bi police constaté kenn du dugg ci kër gi à ce moment foofu moom seen dëkk bi na kenn dootul dugg amul ay deman nga xool lii ak donc mën naa léegi mën naa toog tamit ma ne bon peut-être bi xamut loolu xamut euh, procédure yooyu donc voilà. xam na ko la mooy xam ko. <laughs> bu ko woon. dina ngi de frère bi pour mu tijji bunta tej bunta talam non man ma wax lolu pour pour pour seral parce que duma bëgg attaquer ci lo xamné duma wër dal mais xawma ndax xamna procédure yoy parce que peut être jàng ko wala xamu donc mën naa ko may lolu sax faf mën naa ko may mais dama japp ni yow do ñëw di daji buntu après yow nga tok dugulo parce que yow yakamti bi nga yakamti mëno fexé ba dugg ci kër gi mais ñeneen ñi ngeen naan dugg leen. sous prétexte ñoom mais frère ñoom bàyyi leen ñoom ñu inquiété wu ci moom. bàyyi leen ñoom ñu def di woo Aziz bu ñu ko gisul ñu ñëw këram wala ñu wane ne kaay yóbbu ñu mais yow yaa nekk di ko woo di dem ak ñëw di dem ak ñëw te pendant lundi mardi yow woowu seen waa kër pourquoi. yow yaa ngi inquiété wu déggoo ko gisoo yaa ngi fëgg ci kër gi mais yow mosoo woo seen waa kër pendant plus de trente heures plus de trente heures. yaa ngi tamit kii ne yaayam moo ko woon ne demal si kër ga am na lu fa xew. kan ci. MSEC MSEC na nee na yaayu yaayu lay moo ko woon ne demal kër Aziz am na lu fa xew. léegi pourquoi mère bi di ko woo pour mu dem fa. mère bi waroon xam li xew man loolu laa jàpp mère bi waroon xam li xew. waroon na xam li xew léegi moom déclic bi moy ñu dajji bunt bi ba ñu dajji bunt bi après léegi da ngay woté tu te sens libre nga woté ñu né ah waaw amna lu xew kër ki nangam nangam momit xawma ndax <laughs> moko tay wala tay ku muy daal ay ay bal la génne foofu wax na ay toj-toj léegi na il faut pas que se plaigne que nit ñi duñ koy accuser non si ñi les gens se sont contentés d'analyser ce qu'elle a dit mom li mu wax. moom la ni toog xool ke daan ni lii lii yéen wut maanaam li mu wax bu ne la Wally dee na ni Aziz ki rey Aziz rey na Wally dama ko simplifier noonu ah, wax na leneen ci diggante bi mais ki Aziz rey rey na Wally te waxaguñu waxam Wally rek la maire bi wax loolu nag moom loolu nag man su ma fekkoon fii dinaa ko wax ni que lu tax nga wax loolu wala nga jum wala leneen wala loo xamoon la ba pare donc voilà quoi. donc ay erreur yu bari ci côté bobu tamit wax ni nek nañ kër ki fa la yendu le mardi et cetera di na ni jox na euh, tel euh, jotul diw jotul lele mais mom dafa ñibbi ba paré ñu gis ni woote bobu sax ngi non wuñ ko lolu mom ma da ay bêtises nañu dajalé dal parce que gi <laughs> ay bêtises ñu wala di yónnee naa xaalis yow seen boo nekkee étranger nga yónnee même fii sax boo fi yónnee xaalis nit ni ñi mën nañ xam vérifier ko vite fait système yooyu moom fi lekk fukki at wala lu ko ëpp sax boo leen laajee ñu wax ne la diw yónnee na bel tel jour telle heure. bii ñu ne bii ñu ne dañoo dañoo envoyé xaalis ci téléphone Aziz ñu ne am na ku ko retiré laa ne bu police demee police am nañ droit dem bu dee orange. bépp réseau bu ñu retiré xaalis am nañ droit demande demander vidéo place bañ ko retiré ñu jox leen ko parce que investigation lañuy ñuy def te boobu noonu de am na ñu si jàpp defe naa ci multi service ku retiré xaalis xaw ma. waaw non loolu ci defe naa ci kii am la si ci si euh, kii personnel la ñu ko xam wave la xam wave la. mooy affaire wave boobu léegi la même chose que li ngay wax nii. ci appel mm. ay envoi yu ñu wax ne am na bu dee amoon na it mun nañ kaa vérifier. tout à fait oui oui donc man après dama ni appel boobu benn façon lay la rek nii man maa ngi woon kër sàngam diw moo ñu woo sax moo ñu alerte daal moo tax na bu lay dem foofu. loolu la ñu bëgg wax nabu demul demul ci kër gi noonu parce que kii dafa dem foofu parce que ndey xadi moo leen alerte ni man kii ñaari fan ngi nii mënu ma ko jot. dafa mel ni loolu la daal dafa am loolu nañu bëggoon mbubboo pour wane ni ñun li man li ma tax a dem kër Aziz bay toog bay fëgg bay wax waxut dajji bunt mais parce que Ndeye Khady moo woote wax ni man maa ngi ñaari jour ngi nii man may woo Aziz parce que dama ko yónnee te gisuma téléphone am di dox depuis ñaari fan c'est pas normal da nga dama ko woowul kii wootee lii nii donc kon xaaral ma dem moom loolu la ñu bëgg a gëmloo que ni moom par accident la demee foofu pour dajji bunt bi loolu loolu la. loolu tax ñu indi appel bi pour justifier lu tax mu jóg dem foofu sinon kon mënoon na toog di ko woo rek quoi <laughs> di woote ba mercredi jeudi voilà te doo dem seeti mais appel boobu la indi pour appel bi nekk benn euh, justificatif pour dem si kër gi léegi yow te yow nit ñi ñoo ngi lay gis ngay jaabante foofu ba ñu la yow lan la nga ni non damay kii sama xarit bi ma ko jot waa doo woo seen waa kër leen di ni ki ken mënu ko jot xam nga papa nar neena mom wona ko lendi 3 fois ba vingt une heure et quelque jotu ko moom mu tok bon xamul keur gi tout ça mais xaw nak alerte na tout ça bon lolou sax do xalat parce que mën na nekk si ya, ay affaire am tej tëj téléphone am wala nek ci ay spectacle wala ay répétition yi demé noonu do xam léegi eh, affaire bi ñun ñun tamit dañoo concentrer trop trop trop trop trop si Aziz ak ah, ay xaritam mais Wally moom amul woon ay xarit amul woon ay dugga génn trois mois avant mu ñëw si kër googu fan la dëkkoon Wally ñan la daan fréquenté loolu tamit war nañ kaa lijjanti de. oui ah mais bon maintenant il faut nga xool euh, ci parce que defe naa euh, euh, sous contrôle de de Ababa. Euh, Ababoukara moy defe naa police ñom defe naa enquête ci ka bu melni dañuy xol par exemple dañuy jël par exemple peut-être 72 heures wala 48 heures ñan la victime bi daan waxal wala disanteel wala amal problème wala li légui né à partir de là peut-être dañuy gëna a yaatal mais c'est vrai que gis waxuñ fi dara lu jëmee ci côté wali est-ce que xam nga né affaire bornage yi. man dégguma ah. fuñ né téléphone wali, mu ngi doon borné fi téléphone diw mu ngi doon man bokk. bornage yëpp téléphone Aziz rek man xaw ma téléphone waale fan la nekkoon temps bi ñu bi ñu waxee ne téléphone diw mu ngi woon fii heure bii téléphone diw mais ana téléphone waale moment boobu fan la doon nekkoon. ah je sais pas mais waale li li ñuy wax. loolu est-ce que mentionné nañ ko benn yoon fan la téléphone waale borné parce que moom tamit victime la de. victime la waaw wa waale xam nga ñoom jëfanaa duñ considéré que Wally comme moom duñ ko rëy quelques heures après moom maanaam benn jaaru dommage collatéral la ko gannaaw te bëgguma la dagg dama xaw a jàpp moo tax kii Betty Wally nekkuloon cible bi Wally bon am na benn xaritam mu wax bu fi waxoon ni fële këram la fanaan bi that's it but Wally he was he wasn't the moom du woon cible bi Aziz du la woon moom cible bi. tout le temps ami yow tout le temps loolu mooy sa wax. mais parce que nekkul woon cible bi voilà loolu ñun ñoo jàpp loolu parce que Adji Sarr la mun nañ jàpp que ne hmm. nekkul woon cible bi mais xamuñu Wally ba what to say is okay ni ñu borne téléphone ta waa Aziz mu nekk victime fan la téléphone Wally nekkoon moment yooyu kan la Wally mujjee déggantal comme nit diw moo ko woo bi mu liiwee kii la wuyu kii la dee est-ce que mos ngaa dégg ñu wax dara si Waly si côté boobu man loolu laa bëgg a xam euh, am na xarit am na ñaari xarit benn bu góor bu jigéen ku góor ki fa la fanaanoon këram mamel suma juumul fu loolu tudd mamel man xaw ma seen seen dëkk seen ville yooyu noonu mais suma juum fa la fanaan ci week-end ba léegi kooku moo ko ñoom ñu bokk même atelier Colobane am na aussi benn xarit bu jigéen mu nekkoon tiktok di tiktok ak ak moom mais nobody nobody hated the kid nobody wanted the kid dead. mais Ami Ami. yu loolu yow mënoo ko xam. beti beti maa ngi jégalu. gis nga gis nga Wally dama bëgg ñu waxtaan pour nga understand ma. le fait que Aziz mooy star. cela ne veut pas dire que ne kenn mënu lii Wally. Ami xamoo fan na Wally jógee trois mois passé ba ñëw muuf kër Aziz benn. ñaareel bi mooy Wally dañ koo rey. téléphone mu ngi woon foofu comment se fait location Aziz kese téléphone am léegi Wally moom bi ñu defee investigation Wally kan la mujjee dégganteel kan la doon waxal kër fa xaritam rek la fanaan xaritam boobu ndax police woo nañ ko waxtaana moom yooyu yëpp dégguma ko fii man Aziz rek laay dégg xariti Aziz xariti lii cela ne veut pas dire que ne ñii di investiguer duñu xool côté mais buñ ko xolé man dégguma ci dara lu ci dem lool la lay wax nii. léegi ah, ouais. je pense que foofu am amna am explication bi à peu près. en tout cas quelque chose qui peut qui peut voilà qui peut expliquer cela mooy li nga xamante ça confirme encore une fois que renseignement yi yi fi ñew fuite le rek ben ben partie la bu tuuti bu ñu joxoon kenn sandu ko ko ne ko liggéeyal li mu liggéey ko ba pare jox ko chef am téye renseignement yi ci ordinateur am un ami ñëw wala un collègue ku ci munti doon mu ne ko exploitation wu euh, téléphone wu la dame lay lay man loolu loolu la yor mu ne ko jox ma ko mu jox ko ko loolu kese la donc ba tey kenn teewul procédure bi pour mën a nga confirmer ne Euh, li ñu def ci téléphone wu la Dame Leye Leye on l'a pas fait avec le téléphone de Aziz on l'a pas fait avec le téléphone de Wali kenn mënu ko confirmer na xamuñu yan acte la euh, officier de police judiciaire yi posé ba bi ñuy clôturer seen PV di ko yóbbul procureur kon même kon cela veut dire même affaire bornage yi ñuy wax tam leeraguñu nañ ci kon

c'est pas cent pour cent sûr ndax noonu la demee bon en tout cas am na leen lu am mooy bu fekkente ne euh, kiiwul nekkul nekkul la vérité euh, ça veut dire que ki ko créer xam na en tout cas bu baax nu ñuy defee nu ñuy defee kii euh, nu mu tuddati bornage donc te gëmuma loolu man li ma gëm Parce que, parce que aussi, il faut savoir que Ninkinanka, c'est pas n'importe qui aussi qui, qui, qui, par rapport à l'affaire aux justice. Ah. Khabar Benak Nubari, il connaît beaucoup de, voilà, d'acteurs de la justice. Donc, euh, man jàpp naa ni am na renseignement boobu noonu loolu laa jàpp léegi nag euh, li ñu wara xam moy renseignement bi bi nga xamanteni mom la indi c'est une infime partie dune procédure partie bu tuuti la ci procédure bi nga xamanteni mooy procédure double meurtre bi maanaam benn livre bu nga xamante ni dafa nekk cent page ñu ñu ñu dagal la ci ñaari page jox la ko loolu loolu kese la maanaam pour pour donc c'est un peu ça quoi voilà. donc am ni mu jot a wax daal benn fraction la si PV bi. waaw tuuti la ci du ci tus ma ma ma maa ngi xaw a occupé tuuti après dina jëlaat parole bi. ok. asalaamaaleykum waat euh, Betty Betty maa laa ziar waat euh, pour naa la habi maa euh, ngi góorgóorlu bu baax man maa si li wax yëfi waali waali lu tax waali duñ war nañoo seet fan la waali jógee war nañoo dal si Aziz di ka Aziz loolu ne war nañ ko lijjanti waaye dama xalaat ne ñu ngi wax ne soo gisee ñu bari di wax ne rey bi Aziz nañ Aziz nañ bëggoon Aziz nañ doon ut Aziz nañ moom lii yëpp pour Aziz te na waali nañ bëgg a rey soo seetloo lu ñoo wax ne waali dafa liggéeyi woon kum doon liggéeyal kooku wax na ne waali liggéeye woon na woon am na time boo xam ne fanaana si moom si weekend bi lundi bi dem na liggéeyi ba pare mu wàcca su ma fàtte wut waaye du wàccee lu tax mu wàcca teel a wàcca mooy ne dañ wax ne dañ jël téléphone assis bi seen waali message ne ko Aziz dafa feebar dama bëgg a ñu ñëw nga yóbbu ko lopitaan xamoo nga jëndal ko garab loolu si téléphonie Aziz bi nañ jël euh, lifin euh, Wally kon soo ko seetloo mu ngi mel ni kon Wally bu moo jógee si kër gi di dem liggéeyi dafa bàyyi ñii te ñii xam nañ ne Wally xam na ne ñii ñoo fa nekkoon su fekkoon dañ rey Aziz rek bàyyi ko kon kon Wally dina feeñal ñan ñoo desoo si kër gi kon dama ragal ne foog naa lool looloo tax ñoom ñu boole si waale euh, Wally waaye nekkul na attention bi Wally Wally daf si waroon bokk moo tax ñu toog xaar moo tax ñaari dee yi ñu wax ne dafa utee wante seen time bi dafa utee loolu yëpp hmm, moo tax. waaye si may wax mooy. Hmm. xam nga dañ ne téléphone Aziz mi ngi boor ne fii. Hmm. téléphone diw mi ngi boor ne fii. jour boobu noonu heure yooyu ñuy wax téléphone bornage moom Wally fan la téléphone am doon borne bu weesoo mamel boobu. loolu laa laaj ndax man dégguma dara ñu wax ci ay affaire téléphone am moom bu weesoo message nañ ko nekkoon na ñëw Aziz dafa feebar waali daal dafa mel ni daal man daal bu ma liiwee victime bi daal liñ gën a concentré wu que kële xaritam jamais ma damay wax ñële jàpp nañ leen ñële jàpp nañ leen mais Wally mhm. tam war nañoo xam yan nit la daan fréquenté parce que moom trois mois la xamante Aziz après mu ñëw dëkk kër Aziz donc war nañoo xam Wally ban nit la woon avant Aziz ñan la daan fréquenté avant Aziz loolu tamit ñu xool ko parce que loolu tam day am importance investigation bi ñu xam Wally ban nit la woon avant muy fréquenté Aziz waaw trois mois la dikk trois mois la xam waali la xam Aziz bala moo ñëw dikkat si Aziz boobu moom dégguma ko dama man lu ma déggoo rek mooy ne trois mois la Aziz dikk si kër googu noonu laa déggoon ne ñetti weer rek la dikk si kër googu noonu far li xew waaye dégguma woon ne boobu bàyyiwuma ko xel parce que dégguma woon fu ñu waxee ne waali mooma Aziz ñetti weer rek nañ xamante rek mu toxu si si moom loolu tamit ah, mun naa xapun bi ñu xamante si interview Aziza Wali bi ñu xamante matul trois mois la mat loolu la ñuy wax d' loolu la waaye eh, gis nga yan mande daf dee faral de bari te loolu yàllaa ko dee def si doomi aadama man ni mhm. dëkk Europe laa la wax dëkk naa fekk naa nit sénégalais boo xam ne te gàmbiyan laa romb ko mu ma laaj place si France fii la jógee itali fan la sénégalais yi nekk ma gis gis naka la mel xam naa ne sonn na niit na sangu nit na lekka restaurant moo waroon toog sax di lekka suma gan gi mënatuma woon a lekka damaa dem kër force suma borom kër bàyyi force te mu sénégalais ne ko bàyyi force kooku ku ma gis muy fanaan si mbedd anuma ko gisee foog nga isi ko si kër gi dugal ko si biir kër gi te lijjantiwu ma woon fan la fan la jógee xamoon naa ne eh, itali rek la jógee ma isi ko suma kër lijjantiwu ma ban mbokk la jógee because yéen mande rek moo dox suma loolu yàllaa ko dee def si diggante ñaari de man loolu laa waaw man mm-hmm. dama foogoon ne yàlla man loolu yëfi yàlla la waaye lu jën a important mooy ne fu mu nekk nii mel ni ñoom ñaar xam ne ne ñaari nit nañ rey fekk leen ba seen biir kër rey leen métti na fu métti foo xam ne du foo ko natta dafa weesu lu gën a important fu mu nekk nii suñ buggee sulliwaat feneen fan la waali jógee yàlla fi bés lijjanti lii annabu lay mii ñu bugg a ko génne si kaso bi si dara dara dara dara dara pour wane ne dafa set loolu moo jën a métti si loo gis loolu moom mënuma ko comprendre fenn mënuma ko comprendre ba pare dafa métti si xol soo ko xelaatee sa xol bi dafaa jeex takk waaw foog naa ñu ñaan yàlla daal lii laala yàlla weer leen. nawulay buñ ko génnee si kaso bi ñu setal ko mooy lañ doon wax fii yëpp du dëgg. lii la mooy mooy mooy. mooy mooy journal yi ñu génneel information PV neuf ay lii loolu lépp du dëgg. waaye xam nga yàgg nañ ko wax ne Africa du gàmbi moo dikk du Sénégal bu ma xam ne xaafi Sénégal xaafi Gambie gis nga lan mooy yàq Afrique lu tax pour mu dem kanam day métti nuppa nuppal gi a bàyyi mu sedd ku dee dee na ba pare waaye ku dee dee na ba pare waaye ba kenn lax man de laa la wax man de siide naa sëgga sax di gis mbóot. gis nga su ma gisee luy romba luy naaw di romba damaa ne man du ma ko rey parce que su fekkoon ne ma amoon sañ-sañ mun naa ko rey ma rey ko kon man tamit ku ma bëgg a gis rey ma rey ma loolu ko man noonu laa dee dundee kon mënumaa comprendre nit ki nga war a gis nit ki mun yow kooku mun na laa raw rek ma am na lu nekk si gannaaw rek moo tax da ko bëgg a rey rek ma faxatal ko rek mu jeex takk soo léegi ñu bàyyi ngoon continuer mu dem life fi continuer mu dem loolu dafa métti lii dama xalaat ne gis nga suñ ko bàyyee mu continuer nañ yaakaar ne xam na ne kon jën nañoo may reykat yi ñu jën a rey lu leer laa leen wax lu leer nañ ko midi suñ bàyyee lii sedd nii te seen dëkk bi am président bu ees pour am am am euh, defi naxati prime ministre bu ees pour ñu am yaakaar si ñoom xam ne ñii ñoom dëgg rek ak jubbanti rek nañoo def lii de suñ génnee na bu lii de ban de Sénégal dinaa fa gis man te ban saa yu ma ñëwee vacances Afrique def su ma wàccee Gambie damaa dem Sénégal suma papa foofu la juddee juddoo foofu la yaroo suma mbokk yëpp a ngi Sénégal tey maa ma wax ak ñoom sax dama ne jar na ma sama baay ga suma yaay Gàmbi ñëw toxu si Sénégal su ma su ma demee ba pension kon xam nga ne su fekkee ne lii am na kon de ñu dee ñoo xool yi di yëpp nañ takkasee bagage si dem bi dem beneen dëkk ba te lii dafa métti de man su ma ko wasa suma xol bi dafa jeex ba suma xol ba suma dina bi dafa jóg ñëpp a ngi ab high blood yaa ngi jóg kii jigéen ji jógee fii di wax ne moom ku ko di buddi high stress dafa tax nga sa xaay blood yi jógi sa diabète si jógi sa feebar yoo doon nubal yëpp di ko di ko ndanka ndanka yëpp ay dafay jóg parce que da nga xam ne dafa métti dafa métti bi si kanam yàlla man daa dégg déggal suñ ko génnee daal suñ génnee na bu lay ne def si set wécc wóor na yàlla moom ñañu sénégalais nañ takk seen bagage génn Sénégal maa ngi jégalu di wàcc na. waaw non I'm sorry. man bu boobaa Gambie ñëw.